problème confinement bi ñun dañ ci adhéré wu. Euh, parce que buñ ko waxee sunu sunu sunu wér-gu-yaram la ñuy sàmmal d' abord initiative bi euh, préfet yëpp dañu jël dogal mais rawatina la préfet di cees Nord muy Abdoul Sy euh, bi mu génnee arrêté démb wax ni à partir de tey muy jeudi 26. donc dañuy arrêté bépp activité bu ñu mënee fii ci marché central bu cees à partir de 16 heures. waaw bien lu baax la parce que bu demee nii nga xamante ni dafa ñëw ci suñu réew fii Sénégal nekk lu métti euh, président tamit sonn ci torop ndax su président demee bay wane nu ñuy raxasoo nga xam ni njuutu réew mi sonn na sonn na da tellement couvre fa bi ànd naa ci nag ànd naa ci torop parce que lii day tax doomu aadama yi lii dina wàññi feebar bi ñu xeex ko daal mu jóge suñu réew. activité yëpp on le fait entre 9h ba 18h. lu waay def ba 18 heures nag wax deug yalla comme couvre ça commence à partir de 20 heures mais am heure normale sans couvre-feu normalement 20 heures war na fekk ñëpp seen kër mais ça va quand même gênewul dara suñu activité aussi yàqal ñu par rapport ak suñu vie habituelle quoi. man dal lima ci gis neex na ma parce que am na ñenn personnes yoo xamante mi ngi leen di yar parce que nit ñi ragalu ñu yalla parce que gisuñu ko mais ragal nañu police. bu ñu busee police rek dañuy daw mais ku nekk yaa ngi def lu la neex te yaa ngi gis suñu borom yow gisoo ko mais moom mu ngi lay gis kon man kon d'une part neex na ma. Ah, sant rek sant rek parce que fi mu ne képp ku ne demagul côté sa côté waxoo dëgg bu fekkee ni li war ci yow yam yaa ngi ci muy liggéey ci sa doole yaakaar sa doole rek yàlla xam wax dëgg yàlla am na wàññi de waaye ñu ngi sant loolu bon am na ñu tane. moom tiitaange moom peut ki ki muy daal wala woon ci yoon wala fekkee tout le temps ngi ci yow. habitude to précaution mi ngi ci yow ak bonne habitude mi ngi won ci yow fièvre normalement warul la té tangé parce que limi bañ mom moy li nga xamni la vie de tous les jours lay bañ mom moy salte ak saganté mais féké tay dund bo mi ngi won ci yow moy sat baa ngi ci yow c'est précaution mi ngi ci woon jël say matuwaay par rapport ak hygiène de vie normalement li daf lay wara yok mais warul nek ci yow euh, tangé dañ ci fagaru ku nek na nga fagaru rek xama man lima nan def duma ko bayyi damay continuer di def mais bu fekkee ne na yokku set la loolu dama koy yokk di ko def ak mboolem jullit ñu koy def ku dul mboolem jullit rek képp kuy doomu aadama rek yaakaar naa war ngaa mën a set avant sax lii di ñëw. njiitu réew mi tey su demee ba ni nañ def couvre fa bii pour nit ñi dugg ci seen biir kër yi war nañ koo mën a def ba nga xam ne violance bi du ci am. ndax tay bu ñu àndee njitu réew mi lim ñuy digal chaque jour ñu di def top ci ginnam yaakar na ni li lepp du am ci réew mi ay violence ak yoy yep du am nañ jema def dal li nga xamanteni njitu njiitu réew mi mom la tek ci euh, réew mi ñu and ci mu normal loolu dal moy moy bien dal man ci loolu la and ñun en tant que acteur principal bi nga xamne ño nek marché central bu Thiès en tant que responsable tay dajal ñun suñu ñak mu toll 475000 65000 dajale ko pour li nga xam ne mooy défection yi service d'hygiène war a def suba ñu jënd ko ay produits jàppale ko ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy autorités yi loolu aussi def nañu ko nekk aussi ni ngeen ñu fekkee ñu def sensibilisation di wax ñi nga xam ne ñoo fi war a nekk suba muy lee responsables yi nga xam ne secteur bu nekk ka war a nekk ñu jox ko benn kayit bi wane ne moom war na faa nekk di saytu bagaasu jàmbur yi nga xam ne ñoo fa nekk. ndaxte eh, di xëy tamit di dégg ay nit ñu ngi feebar yow muccoo ci ngay jénn chaque jour say famille di jénn say am di jàmm di jénn lolou lepp tamit dalul xel na ñun ñi nekk ci marché bi tamit xam nga yooyu yëpp tamit dalul xel né dal comme nit ñu ko waxé dal nañ ko doxalé nonu raxas loxoy ba mu set euh, fatu ci biir kër yi bo amul soxla bu urgence bo xamanteni mo la yëkëti bul jéen na nga tok sa biir kër. police yi nak li ñuy def mom anduma ci bala ñuy door nañ laccé agression yi balina bala ñuy door nañ laccé yow fi nga jëm ni dégg won téré nañ li lutax ngay dem nga né ah li ak li ak li bu fekkee na la ku ñu wara yobbu hôpital koku jar na nga bayiko mais bu fekke na tayef la waaw waaw bu de tayef la bobu mun nga ko yar. fi ba couvre fa bi di jeex euh 16h a partir de 16h na ñepp lali dem tok seen keur deglu kilifa yi ndax li wax kay yi ñun mën nañ ko confirmer ne dafa dem ba dugg ci marché bi lool mom am nañ ci ay certitude ak confirmation bu wër kon nak source yi mënu ñu ko wax mais nak ku nekk na nga tok sa keur ta xam affaire bi jage nañu suñu wër gu yaram la samal nak lol vraiment motax tax ñuy lancer appel. peut-être mënon na nekk ay correction yo xam pour xaw a xëbal nit ñi wala dara mais il devait pas abuser wala ñu ci foofu wala bu nek ben ben jeu ci ñom parce que même couvre-feu ça ne donne pas le droit de de bastonner les gens ça ne donne pas le droit ñuy maltraiter les gens c'est tout juste que ñom li leen teg moy au moins couvre-feu bi euh, ñu faire respecter ko la population mais par contre ñu blesser ñu gagne ça c'est de la vie, c'est de l'irresponsabilité Là quoi. aussi ñàkk xam aussi seen waral bi ñu teg leen ci kaw ci kaw tali bi aussi population war nañoo xam aussi lan mooy couvre-feu ku nekk aussi xam lan moo sa fi la yemloo ak fi la la au moins ñu respecté ko comme ça voilà ku nekk nekk ci jàmm policiers yi liggéey ci jàmm population aussi xam lan moo ko waral ci jàmm ku nekk nekk ci jàmm